العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي على من امرنا بان نصلي على الذي به رفعت كليا من بشهادتين قد دعا الى رب الورى كل الورى مع الاله وصل اللهم وسلم على محمد بن عبد الله هو من نسل هاشم فنقله من طاهرين وطاهرا هتندت للطاهرين وطاهرا يا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الله أيضا بالتوفيق والتيسير والهداية لأننا كلما نجد بالتوفيق ليس من أحد سوى الله لأجل هذا هو قال في مقام التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله نشكر أيضا الأئمة والأساتذة الحي وآباءنا الذين نعيش معهم في سعوة الدعوة الدكار نجمع هنا لكي يبين لنا الموضوع يضوح في مداخل الشيطان مع الأستاذنا وحبيبنا وقدوتنا أستاذ سعيد لي ندعو له التيسير والتوفيق لكي يوصل إلى الغاية الذي بأجل هذا يتجرأ ويتجول في أي مكان في أي ساعة ليوجه الشباب المسلمين لكي يهتمون بدينهم يا شيخ أعانكم الله وعزك الله kon mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla sant bu yelloo jëmmam bu màgg bu tedd bi di wax ne xëy bu ñu mën a am rek kenn jox na ko ku dul yàlla ñu ngi koy sant ci loolu di julli di sëlmal ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam ak njabootam yépp di gërëm imaam yi nga xam ne lañu fekk ci jàkk ji ak boroom xam-xam yi fi fekk ak ñi nga xam ne ñoo yor idaaratul masjid bi bu fekk ñoom yombul woon lii kon lii du am kon ñu ngi leen di gërëm ngërmande bu tolloo ñoom jëf ji ñu jëf ndax mënuñu leen gërëm gërëm bu tolloo ñoom li ñu jëf ndax lott nañ ci li tax ñu daje fi tey mooy ñu xool suñu noon boobu di seytaane yan kàmb la ñuy gasal ngir ñu xam kàmb yooyu ngir ñu mun cee mucc ndax ñëpp xam nañ ne noon bi nit am mooy cheytaan inna cheytaana kaana lakum aduwa fattaxizuhu aduwa kon noon boobu nag faw ñu déglu yàlla mi nga xam ne moo ñu wax ne kooku seen noon la mu wax ñu sunu noon boobu yan mooy ay kàttanam ak lan mooy naqsam mooy ay ay faiblesse am ngir ñu xam nan la ñuy jëflante ak moom ñi nga ànd ak sunu sëriñ di ànd ak sunu oustaz di ànd ak sunu soppe koo xam ne bi ñu ko xamee ba léegi soppeekuwul lu toll ni tarfata ay ni ñu ngi koy ñaanal yàlla ak sabaat ndax képp ku am sawaat sax ci yoonu yàlla ad daawa salima al fahmu shamil wal ixlaas wal amal wa tajarrud fi sabili gaayatihi fala budda an tudaqi kulla ma malak min al juhd wal fahm wal ixlaas wa ma ila axir kon sëriñ bi ñu ngi ñaan yàlla ubbil la sa dund yaatalal la sa xel feccil la sa làmmiñ muccal la ci noonu boobu nga xam ne saa yoo jógee ngir wane ay pexeel mu jóg ngir lan daaneel la kon yal na la yàlla aar yal na yàlla dugalal làmmiñam kon fa lee tafaddal mashkur yaa fadratu cheikh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi ñu leen di ziyaara ci barab bu tedd bi nu nekk muy néegu yàlla di leen nuyu nuyu islaam di ci jiital ñi jiite barab bi ak mbokk yi jullit yiñ fi fekk yépp noo ngi ñaan jalla jalaaluhu lépp luñ fi naraam ci yiw danañ ko yàlla boole fi misaani xasanatina yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim beneen bi ci tegu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ war a ànd ak yéen fàttalante ko muy yoon yi nga xam ne seytaan ci lay jaar pour réeral doomu aadama muy yoon yu jara xam yoon yu jara mooy tëndiku waaye mbokk yi sunu digganteeg seytaan du lu ndaw ndax seytaane moonu mën moonu ëpp doole moonu ëpp xam-xam moonu gën a sawar mbokk yi ku xeex ak sa baay ak sa ndey gañe leen daaneel leen ndax yow kooku dinga ko të tontu bi mooy déedéet kan moo xeex ak sunuy ndey ak sunuy baay daaneel leen seytaan loolu nu yàlla wax ci quraan ndax aadama sunu baay la xawaa sunu yaay la te xam ngeen iblis seytaan fekk na leen ci aljanna fi leen yàlla dencoon génn leen ca biti loolu nag ñun war nañ cee jële njàngat bu ñu war bu ñu war a waajal sunu bopp bu ñu war a préparer sunu bopp te benn bunt dong la ñuy mucce ci seytaan mooy sunu nekkee ci ginnaaw yàlla amul feneen amoo pexe amoo kàttan amoo xam-xam amoo mën-mën boo rëcce seytaane loolu na leer ci sa bopp benn yoon rek mooy nga nekk ci sa ginnaaw boroom foofu dong nga mën a muccee loolu tax sunu boroom du deñ ci aaya yu bari ci alquran mbokk bi yal na ko yàlla fay ubbee na ci léegi benn aaya bi muy ubbi waxtaan wi seytaane di nu xam yàlla di nu xamal ne seytaane seen noon la te noon waxul sax ndax noon ñaari noon ñoo am dafa am noon boo xam ne moom daf lay won ne moom man sa noon la ba nga xam ne kii sa noon la boo ko gisee mu toog nga xam ne kii sama noon la loola yàlla naan innahu lakum adu adu mooy noon waaye yàlla teg ci mu biin mooy kii xam nga ne noon la bu bir bu feeñ parce que nëbbul nooneel gi daf la ko woon ba nga xam mbokk yi kon noon boobu nit mën naa mucc moom koo xam ne wan la ko xam nga ban noon nga mënta mucc mooy noon bi la ko wonul di la ree boo ñëwee mu nuyu la ñaari loxo soo ko wooyee mu wuyu la waaye mu ngi la laral ak nooneel ci suuf kooku nga mënta mucc mais ki la ko won kooku soo defee effort tuuti daal di rëcc ci moom suñu borom daf ñuy nettali histoire lan moo tax seytaan nekk suñu noonu lan moo tax seytaane bañ ñu dafa am sabab de dafa am sabab ñun ñii ñëpp toog fii li tax seytaane noonu di bañ ñu dugg aljanna dafa am sabab sabab bi lañu yàlla nettali yàlla wax ñu histoire bi lu tax yàlla dañu ko wax pour préparer nu pour nu bañ a waru ci waa ji borom bi nettali ñu ci suratul araf mu ne walaqad xalaqnaakum summa sawarnaakum summa qulna lilmalaikati isjudu li aadama fa sajaduu illa iblis lam illa iblisa lam yakun min alsaajidin borom bi ne maa leen bind laqad xalaqnaakum man yàlla maa leen bind jalla jalaaluhu kenn bindu leen kudul man maa leen sàkk maa leen amal yéen doomu aadama yi waaye bi ma leen amalee summa sawarnaakum maa leen melal ni ma neex loolu tax ci yeneen barab ci alquran yàlla bi doomu aadama bi yàlla gisee doomu aadama doy waar jàdd yàlla di ko woo naan ko maa garraka bi rabbika alkarim da ko ne alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalak fi ayi suura fi ayi suuratin maa shaa rakabak ci melokaan bu ma neex man yàlla laa la bindee nii nu mel yàlla la neex ñi gàtt ñi njool ñi am yaram ñi sew ñi wér ñi feebar ñi am ñi ñàkk melokaan boobu moo neex yàlla mu bind ñu ñu mel noonu yàlla nee na summa sawarnaakum mbokk yi ñaar yi teraanga la wala du teraanga yàlla bind la teraanga la wala du teraanga ñun ñi toog fii bi ñu yàlla di bind di ñu def nit kan moo def demande lettre ne ko yàlla nit laa bëgg bu ma def mbaama yëkkati sa loxo bi yàlla def xaj-xaj muy def mbaam mbaam muy def fas-fas yow mu lay def nit ban demande nga def suñ borom moo ko neex mu bind la nga nekk nit waaye nit ñi li ñuy bari bari mu boole la ci jaamam yi ko nangul yemu ci loolu mu ne summa sawarnaakum man yàlla maa leen melal wala ni nga mel balaa ngay xam ne tane nga ñu bëree bëri ci mbindeef yàlla yi nga sol sa yére taxaw ci sa seet di nga xam ne tane nga ñu bëri di nga xam ne gën nga ñu bëri di nga xam ne fi la yàlla teg tegu fa ñu bëri summa sawarnaakum yemu ci de mu ne summa qulna lil malaikati isjudu li aadam yàlla mu ne yow yaay mbindeef mu mujjee ñëw ci kaw suuf fii nga fekk malaayika yi fii nga fekk asamaan fii nga fekk suuf fii nga fekk sax garab yi même am na ci rabu àll yoo xam ne sax fii nga leen fekk yow yaay mujjee ñëw yow doomu aadama yaay ki mujjee ñëw ci kaw suuf doomu aadama bi muy ñëw ci kaw suuf fekk na suuf lépp pare fekk na fi sax samaaniyata azwaaj juróom-ñetti xeetu rabu àll fekk na ko fi ñun ñoo ko fi jiitu kon yow ci ñi fi mujjee ñëw nga bokk waaye terewul yàlla mu ne man maa la teral yàlla bind na aadama bisu aljuma mu dugal ko aljanna aadama tëdd guddaayam nekk 60 xasab xasab mooy li ngeen di wax zira ci déggin bu neex ngeen ne ko mètre 60 mètre la aadama tolloon guddaay kon aadama xejuloon fii ci jàkka ji yaatuwaay 7 mètres yaatuwaay mbagg yi 7 mètres la guddaay bi tànk yi ba ci bopp bi 60 mètres la aadama tolloon sunu borom teral ko daa di woo malaaka yépp mu ne leen sujootal leen kii borom bi nee na ñépp sujoot ba mu des iblis mu ne ko maa manaaka alla tasjuda is amartuk waaw yow iblis lan moo la dal ba bi ma la sante na nga sujjootal mbindeef mii di aadama nga bañ benn question benn tontu la iblis tont qaala ana xayrun minhu maa ko gën qaala ana xayrun minhu maa ko gën xam ngeen lu tax mu wax loolu pourtant loolu iblis waxoon ba léegi am na ñu koy wax ci jullit yi ana xayrun minhu nun ñoo leen gën lan ngeen nu gëne annaasu sawaasiya ka asnaanil must kullukum min aadama wa aadama min turaab kon ana ngëneel gi mais da ngay dégg famille yi ñu ne famille bii du sëy ak famille bi parce que ñii ñoo gën ñii instant nga dégg ku ne man gor pire la pire bu ndaggee fii lan mooy génn or bu ndaggee fii lan mooy génn jamaa kon yow loo gënee keneen ki kullukum min aadama wa aadama min turaab wala loolu du waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko yàlla wax na ko ci alquran xalaqakum min nafsin wahida wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa kon jeex na kon amu fi ngëneel waaye xoola iblis li ko nax ba mu ne ana xayrun minhu man maa ko gën mu nekk baat bu doy waar foofu la yàqule ba mu ne maa ko gën yàlla bàyyiwu ko noonu foog yàlla laaj ko ne ko lan nga ko gënee danga ko fee jiitu wala danga maa jaamu te iblis bi muy tontu yàlla loolu naan maa ko gën boroom xam-xam yi nee nañ iblis foo natt ci suuf si nii sebre iblis jaamu na ko yàlla même boo jemee ci yenn tafsir da ngay gis ñu wax asamaan yi juróom-ñaar asamaan bu nekk iblis nu mu tuddoon asamaanu sàngam iblis nangam la tudd asamaanu nangam iblis tak tur septième asamaan la tudd iblis mooy boroom mujj gu bon mooy koo xam ne fi mu mujj baaxul bi ko yàlla laajee lu tax sujjootoo benn tontu la tontu ana xayrun minhu ana xayrun minhu lu tax xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin man danga maa bind ci safara moom nga bind ko ci ban kon safara moo gën ban ndax ban bi dafa xeeñ soppeeku mel na lu nëpp ba pare ban bi dafa am ay couleur ba pare ban bi dafa tooy xepp yow yàlla moom nga jël jaxase ko ba mu tooy nga defar ci aadama bi nga koy defar fekke naa ko bi yàlla bindee aadama bàyyi ko mu nekk suuf iblis da doon ñëw di dugg ci biir bi di génn ci ginnaaw gi iblis bi mu gisee kii dafa am biir ci la iblis xam ne kii mënta tenir mënta tenir mënta dékku kii ku yaafuus a ngi nii waaw ndax doomu aadama fu mu dem rek bu yàggee mu fàttaliku kan biiram moo tax bi mu gisee ban boobu lan la wax yàlla man maa ko gën ndax danga maa bind ci safara moom nga bind ko ci ban waaye yàlla nekkul foofu di ko tont yàlla daf ko wàcc qaala fahbitu minha fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha faxruj fa innaka min alsagirin yàlla ne iblis génnal fii waroo fee réy réylu fii waroo fee bàkku fii waroo fee wane ngëneel fii li nga fi war a wane mooy ab jaam comme nangoo nekk jaam nag génnal bis ni ki tey maa ngi la yégal ne ku tuuti nga gis nga jaamu yàlla loo rëy rëy rëy rëy loo màgg màgg màgg loo am martaba loo am xam-xam soo moyee yàlla rek tuuti nga soo moyee yàlla ku tuuti nga soo moyee yàlla ku doyee di nga iblis ku amoon martaba la waaye keroog ba mu moyee yàlla ci la tuuti ma laaj leen benn laaj iblis ñaata bàkkaar la am ndax am na ku ma mën a tontu ci jumaa ji iblis ñaata bàkkaar la am benn bàkkaar la am bàkkaar bi mooy lan su jootalal aadama mu bañ aba wastakbar yàlla mu ne wa kaana minal kaafirin benn aadama ak awa ñaata bàkkaar la ñam benn wala taqraba hadihi sajara fa takuna min alzalimin fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fii waaw su iblis amee benn yàqule aadama ak awa am benn ñu génne leen asamaan ak suuf génne leen asamaan aljanna wàcce leen ci kaw suuf ñun ñu toog fii ku nekk ñaata nga am fu ñuy dóore ku am benn ku am fukk bu fa teewee nag fu mu jëm te xoolal aadama ci benn bàkkaaram boobu xoola iblis loolu mu def su tuuboon rek yàlla baal ko aadama iblis su tuuboon loolu mu def yàlla su tuuboon même bi ko yàlla ne génnal bi mu génnee ba pare bu tuuboon rek yàlla baal ko waaye lu mu def mooy aba wastakbara aadama lan la def fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim baat ya mooy lan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin ulama yi nee nañ lamma nazala adama min alsama ila al ard makasa salasa mia sana lam yarfa ra'sahu ila alsama li hayaa'i subhanahu wa taala adama bi mu wàccee toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan pour rus yàlla ci benn bàkkaar boobu mu def bul jege garab gi mu dem jege ko loolu moo tax adama bi muy faatu dafa feebar mu yónni doom yi dem leen ngeen utal ma garab doom yi di wër dajeeg malaaka yi ñi ngi yor siwo ñi ngi yor bagage yi ñuy sangee néew ñoom malaaka yi bi ñu gisee doomu aadama yi xàmme nañ leen arafu anna haula abnaaw adam lakin abnaaw adam lam yaarifu almalaika limaza li annahum lam yaskunu maahum fi ljanna malaaka yi ba ñu séenee doomi aadama yi xam nañ ne ñii aadama leen jur waaye aadama doomu aadama yi ñoom xamuñu ne ñii ay malaaka lañ ndax lan fekkentewuñu ak ñoom aljanna malaaka yi laaj doomi aadama yi ana seen baay ñu ne mi ngi kër ga lu ko jot dafa feebar fu ngeen jëm dañ koy utal garab kaay leen dem kaay leen ngeen dellu ñu nekk ci ginnaaw gaa yi gaa yi jiitu leen bi leen awa séenee ñuy ñëw mu daw laqatu ci ginnaaw aadama allahu akbar parce que xam na leen xam na ñii di ñëw hawa xam na leen moom bi mu laqatoo ci ginnaaw aadama téye ko aadama ne ko xalli bayni wa bayna malaikati rabbi day bañ li ko daloon day bañ li ko daloon biir aljanna dalaat ko moo tax mu ne ko génnal sama diggante ak sama boroom samay malaaka borom génnal samay digganteeg samay malaaka borom yow awa bul ci dox pusal fële ndax day bañ li ko daloon dalaat ko ci la ko malaaka yi rey daa di won doomi aadama yi ne leen lii mooy seen sunna baay ku dee ci yéen nii lañ koy denc mbokk yi ci lu gaaw iblis yàlla dàq na ko aadama yàlla jël na ko dugal ko aljanna waaye iblis bi ko yàlla di dàq yàlla may na ko temps wax na ko waxal li nga bëgg mu ne yàlla damaa bëgg nga bañ ma rey ba bis bi ñu xam ba bis bu dekki ba yàlla ne ko may naa la ko bi ko yàlla waxee lool rek mu profité waaw comme yàlla nee na ko may naa la doo dee ba bisu bi ñu xam qaala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim yéen ñi jàng arab xool leen iblis baat yi mu utilisé moom moo tax ngeen xam ne seytaane fawul dafa ne la aqudanna lahum laam bi laamu lan la laamu qasam nuun bi nuunu lan la nuunu tawkiid asaqil awil xafif saqil baat yu garaaw la utilise la iblis utilisé dafa waat dëgëral ko ne yàlla gis nga yoon bi ci laa naan faax toog yoon bi nga bëgg gaa yi jaar aadama mi ak doomam yi ci yoon bi nga bëgg ñu jaar muy siraatal mustaqim ci yoon boobu laay toog mu ne summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim fala tajidu aksarahum shakirin ndeysaan dinaa ñëw ndeyjoor dinaa ñëw càmmoñ dinaa ñëw ci kanam dinaa ñëw ci ginnaaw lépp ci jaam yi dinaa fexe ba yow yàlla dun la sant allahu akbar kon iblis dafa ngembu yàlla ne ko sama jaam ñi nañ ma jaamu mu ne dinaa fexe ba kenn du la jaamu li ëpp ci jaam ñi dinaa fexe ba duñ sant yàlla loolu tax tey fii ci dëkk bi baas yu ëpp yu ngeen di gis ndax dañuy sant yàlla la man de dégg naa ci rajo ba sonn dañuy sant dañuy sant waaye musuma dégg baas bi dañuy sant yàlla dégg naa ay annonce ay annonce ci rajo ba sonn ak télé bis bi sàngam dañuy sant bisu sàngam dañuy sant waaye musuma dégg bisu sàngam dañuy sant yàlla te iblis li mu wax yàlla wala tajid aksarahum sakirin ñëpp ci nit ñi duñu sant yàlla ñëpp ci ñun lan lañuy sante yàlla naan ne alhamdulillah waaye loolu mooy sant benn góor dama koy nettali lu bari ci xissa benn xissa dama koy nettali lu bari ci conférence góor gi dafa am alal lu mu bëgg rek loolu mooy am parce que borom alal lu mu bëgg rek loolu mooy am ci lu mu war lu muy yéeg lu muy lekk lu muy naan lu muy sol lu mu lu mu bëgg rek loolu am parce que borom alal la alal bi mu am moo tax doom yi tamit juddu am alal góor gi dund na juróom-ñetti fukki at 90 ans la am benn bis dafa xëy rek mënut a dem wanag mënul tuur ndox pour ngeen dégg ko mooy mënul saw mu woote doom yi ñëw mu ne leen dama feebar mënuma saw ñuy yóbbu ko ci hôpital yi gën a rëy ci àddina bi boole ko docteur yi dàq faj deux secondes ñu dimbali ko yëf yi daal di génn docteur yi génn fekk xale yi toog ci saal bi docteur yi daal di song xale yi xale yi song docteur yi ana góor gi ñu ne alhamdulillah lépp normal na ñu ubbi saal bi ñëpp dugg ñu wër ko papa mu ne lépp baax na alhamdulillah rek xale yi génne ay chèque di may docteurs yi di leen bindal papa ji ne leen lu ngeen def nii ñu ne dañoo kontaan dañuy gërëm docteurs yi parce que ñoo la dimbali rek papa ji daal di jooy xale yi ne ko ah lan la xanaa métti bi dafa ñëwaat mu ne déedéet ñu ne ko kon looy jooy mu ne li may jooy mooy ñii. benn yoon lañ ma dimbali rek yéen ñoom ngeen gërëm leen di leen sant juróom-ñett fukki at yàlla moom may dimbali kenn santul yàlla ñun ñu toog fii ci jumaa ci kanti ñun bi moo doxi ba guddi nga ñëw nga jàpp nga ne sama bët yi li muy xool waa ma julli ma sant yàlla ñaari rakk ci sama bët yi sama nopp yi li ñuy dégg waaye waaye naa ci sant yàlla waaye tey ngelaw li may nooy te mosuma fay facture waaw ma sant yàlla sama tànk yi dox yi muy dox naa ci kan ci ñun moo mos a xëy rek daan na jàmm ji ma yàlla may xaaral ma julli ñaar raak ma sant yàlla kan ci ñun moo ko fi mos a def loolu parce que xamuñu xamuñu martaba sukru moo tax as sukru gis nga iblis lu mu njëkk a wax li gën a ndaw nit ñi di ko xeeb mooy sant te moo gën a rëy ci yàlla wa amma bi ni'mati rabbik iblis i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya ashakur yàlla ni ko iblis waxee noonu la ko yàlla feddalee ndax néew na ci jaam yi ñuy sant yàlla mbokk yi ñun ñii ñëpp sunu dund ñu ngi julli ñu ngi woor ñoo ngi def lu nekk ci jaamu yàlla yi waaye est-ce que egg nañ martaba sukru sant yàlla da ngay gis koo xam ne day julli te du sant yàlla nga gis kuy woor koo xam ne du sant yàlla kuy saraxe te du sant yàlla lu tax parce que sant fañ ko teg dafa ne loolu kese la fekk du loolu wees na loolu xoola góor gi li mu wax ndeke tuur ndox sax nga war a dem tuuri ndox nga toog ci sees bi ba jóg allahu akbar xoola yonent bi lu doon wax su jógee ba génn ci toilette lu muy wax alhamdulillah gufraanak alhamdulillahi allazi azaba anni al aza wa afaani ñu ne riwaaya bi dafa daif comme ci fadailul amal yi la mënees na kaa jëfee gufraanak yonent bi lépp sant yàlla la jàngeen ñu ne yonent bi da daan sant yàlla bu neexee bu naqaree su neexee mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal kon ci lu gaaw mbokk yi iblis foofu la ngemboo ne yàlla jaam ñii danaa fexe ba duñ la sant danaa fexe ba duñ la topp ndeysaan waaye sunu borom ci ay minit yu ndaw mu dugal aadama aljanna mu mooy tandikuloo ko xamal ko pexe waa ji nga xam ne aadama léegi la taxaw fii fekk histoire bu rëy bii diggante seytaan ak yàlla balan moo ci juddu mooy waa ji yàlla génne ko ci yërmandeem noonu la yàlla gestoo aadama ne ko yaa bani aadam yàlla boole ñu ci ñun ñëpp mu ne laa yaftinannakum shaytaan kama axraja abwaykum min aljanna ngalawaay yéen tamit bu leen fo bu leen caaxaan ba seytaane génne leen ci pas-pasu yàlla bi comme ni mu génnee seen baay biir aljanna ngalawaay yéen nit ñi bu leen seytaane jay bu leen seytaane wor ba ngeen génn ci diine yàlla bi comme ni seytaane génnee woon seen ñaari way jur mooy seen ndey ak seen baay aadama ak hawa seytaane moom caaxaanul li mu waxoon yàlla ci la nekk ndax waxoon na yàlla ne li ëpp ci nit ñi di nga fekk ëllëg yow mal xiyaam ànduñoo ak yow man mii lañ àndal waaw seytaane nag bi mu wàccee programme boobu mu doon def loolu mu bëggoon dafa tëral ay programme programme la tëral pour lan pour sànq doomu aadama yi léeg-léeg doomu aadama ci ay xalaatam yu muy xalaat wala ay bëgg-bëggam wala gis-gisam wala dooleem wala alalam wala xam-xamam ci la ko seytaane di jaar ndeysaan daal di koy kepp ci waxtu yu ndaw ñu def namasij min kaydi seytaan wa makrihi bunt yi seytaane di jaar pour réeral doomu aadama yi ñu indi ci ay modèles yu ndaw ginnaaw léegi ba ñu xamee xeex bi lu ko waral xeex bi mooy aljanna aadama dafa am place bu rëy iblis iñaane ko ko ba yàlla dàq ci iblis iblis nag ne léegi comme aadama tax dootu ko bàyyi moom njabootam ñu dugg aljanna yooyu mbokk yi bi ci njëkk mooy taxyiru xalq allah jàngeen ci alquran iblis mu ne seytaane mu ne yàlla wala amurannahum fala yugayiranna xalq allah allahu akbar xoolal iblis day ñëw fekk fexe mooy yàlla mooy yàlla lii mooy yàlla la waaye mu fexe ba mu rafet ci yow njaaloo nga am doom joo xam ne takkoo yaayam nga am doom joo xam ne baayam takku la dafa rafet wala dafa ñaaw lu ñaaw la waaye xoolal ni ko iblis taarale ci nit ñi kenn garaawalatu ko noonu la iblis des def dafay jël bàkkaar li yàlla bañ mu rafetal ko aaya bi ñuy wax ne mu ne iblis di wax ne wala amurannahum fala yugayiranna xalqa allah dinaa fexe nit ñi ba ñu changé bind bi leen yàlla bind ba ñu soppi ko su ngeen ko doon firi ci Sénégal lu ngeen koy firi xeesal ak mèche ngeen di noppi yàlla bind nit jullit ci aaya bu ndaw boo xam ne yàlla ni nga mel yàlla moo ko neex yàlla day wax ne yaa ayyuhal insaan ey yow doomu aadama ey yow fàttekat bi maa garraka bi rabbikal karim lan moo la jay ba nga bàyyi sa borom lan nga gis lan moo fees sa bët ba nga bàyyi sa borom yàlla allahu akbar maa garraka bi rabbikal karim allazi xalaqak fa sawaak fa adalak fi ayi suratin ma shaa rakabak yàlla nee na maa la bind ci melokaan bu ma neex forme bu ma neex guddaay bu ma neex fi ay suura ma shaa bu ko neex moom yàlla rakabaka la la formé kon yàlla bu la bindee nga ñuul nga dem changé ko loo wax yàlla yàlla li nga ma def neexuma ndax damaa bëggoon xees nga def ma mu ñuul yàlla def la ci melokaan bu ko neex gàttal sa kawar nga ni yàlla man bëgguma sama kawar gàtt maa bëgg mu gudd nga dem meesu nga dem jël ay machine changer sa bëñ yi utal ko ay sàkkara yàlla daanaka sax tey xool ngeen am na góor ñoo xam ne dañuy dem seen awra ñu opéré ko dafal leen awra jigéen seen ween yi ñu pompe ko pikiir ko ñu defar leen bañ nekk weenu jigéen tey am na ci àdduna bi ñooñ ngeen naan ay góor jigéen yemuñ ci sax rek bind bi leen yàlla bind non non dañuy dem changer cër yi dóor ay cheveux indien kawar gi ñu guddal ko ñu defaraat seen forme yi lépp kon iblis yoon yi mu njëkk a tëral pour doomu aadama jaar ci mooy fexe taxyiru xalqallah ñaareel bi ci yoon yooyu asadd an zikrillah seytaane dalay baare ba dootoo jaamu yàlla da nga doon julli mu fexe ba dootoo julli xoolal tey ci Sénégal ñaata mbooloo yoo fi ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne du ñu julli da ngay gis ku jàpp ba pare jàpp jàpp ñëw jàpp ba pare toog ñu ne ko doo julli mu ne noono wala zikrullahi akbar man du ma julli billaahi wallaahi taala am na ñoo xam ne tey duñ julli ñaata ci nit ah soo waxee ñu ne non julli lu ci nekk julli taxul dugg àjjana ah yooyu lañ lay wax nit dina julli ba dee dem safara waaw mais yow sa yoon nekk ci yow xam nga luñ la wax yow dañ leen a jullil julli rek waaw nit dina julli ba dee dem safara xanaa dafa yàq julli gi waaye soo jullee ni la ko yonent wone nga jullee ni la yàlla sant julli googu moom daf lay aar sax inna salata tanha anil fahshaai wal munkar julli googu daf lay aar doo dugg safara maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin fa xalafa min baadihim xalafun ada'u salaa wattaba'u sahwaat fa sawfa yalqawna gayya illa man taab kon julli guy dugal ni safara mooy daf koo julleewul ni yonent bi wax mooy comme sunu julli yi rek raktak dóor mu daanu ah te imam bon am dañoo am rendez-vous tey tey rak tag la dooru mu daanu julli goo xam ne amul rukkoo yu maat amul ay sujjóot amul njàng mu sell yëpp kërëb kërëb la xanaa loolu moo yóbbu ni safara kon ñàkk a julli zikr boobu mu wax mu nekk beneen bunt wa yasuddukum an zikrillah wa anis salaa fexe ba dootu leen tudd yàlla fexe ba dootu leen julli fekk nee na foofu nag wa haza min azami maqasidi shaytan ndeysaan nga gis julli jot gaa yi toog di fo julli jot gaa yi nekk ci stade bi wala tey nawetaan yi stade yi ni muy feesee julli jot julli jot ci wetu stade laa dëkk da ngay gis stade bi ñu ubbi ko onze heures ci suba ba trois heures du matin nit ñi nekk foofu xool leen làmb bu amee làmb làmb yu mag yi bu amee stade bi ban heure lañ koy ubbi du ngeen tontu fajar lañ koy ubbi kañ la fa nit ñi di nekk ban heure lañ fay jógee ndax ñooñu ñu ngi julli wala waxtu yooyu ñuy sànq léegi encore bu mbër mi daanee bu daanee soo demee doo julli suñ ko daanee doo julli ndax da ngay mer te sax ngi ku ku mere yàlla te yàlla looy def nii inna lillahi wa inna ilayhi ci bëre ci bëre ñu ngi may nettali benn paa boo xam ne dafa bëgg bëre bëgg bëre ba te moom moo yor caabi jàkka bi léegi mu dem ubbi mu yóbbu ay écouteur ak portable am mu ngi déglu bëri bi te ñu ngi julli de mu ñëw def ñaari ràkk timis rek mu dégg dañoo yëkkati mbërëm bi mu ngi julli de rek mu ne du jóg de du jóg de te mu ngi julli ndeke écouteur yi lay déglu te mu ngi julli loolu musiba la xoola foofu lañ toll tey ci ñun ndeke yooyu yëpp pexe seytaane la seytaane moo naan la waaw xam nga yow demoo estaat xam nga yow mag nga ku baax nga ndax yow yaa ngi ci jàkk ji waaye léegi xam nga nooy def da ngay ut sa portable rek nga def ci sa écouteur nga déglu loolu dara nekku ci même ñun ibaadu yu fii sax da ngay gis duñ dem estaat waaye dañuy ñëw ci télé bi toog macha allah man du ma dem stade mais macha allah demoo stade li ngay def ak ku dem stade benn la ndax yaa ngi toog ci kanamu télé bi wala yaa ngi seetaan te li gën a bon ci àdduna mooy seetaan làmb bàkkaar bu rëy la yonent moo ko laana allahu nazira wal manzuru ilayhi yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande kii kii xool awra jàmbur ak kii xool awra bi ak ki ñuy xool awraam wala loolu du hadis yaa ngi xool awra mbër mi dafa simmeeku awra góor fan la yem zakkaana mukallaf fan la awram tàmbalee mina surra ila rukba mbër fan mooy génn ci moom ah lépp day génn est-ce que nit mën na seetaan làmb te xooloo awra boobu moo gën a gon parce que boobu moo gën a bu xoola boobu moo gën a ndaw parce que boobu ay góor lañ nga bàyyi say soxna say doom yu jigéen ñuy xool awra góor allahu akbar ñuy xool awra góor nga bàyyi say soxna ak say doom mi ah kaaw ah ande de mi yi balla gay am na benn maire day xool manga ja jamono manga ba muy bëre ni seetaan télé bi de nii ak manga nu mu ngandee maire bi jékki-jékki mu ne cay manga mi pooja mi kum ci kepp kooku est-ce que bëre lay seetaan kooku xelam ci lan la dem voilà mbokk jullit yi yéen ñii di góor su ngeen gisoon ñaari xale yu jigéen futteeku mel ni ñaari mbër yi mel seen xel ci lan lay dem yéen yéen góor ñi waaw kon jigéen bu koy xool xelam ci lu muy dem loolu moo gën a bon kon gis nga pexe seytaane moo naan la non yow macha allah yow mbokk bu baax nga yaa ngi julli yaa ngi dem jàkk bul dem stade de waaye nag télé baa ngi nii garaawul quoi wàññi ko rek wàññi ko quoi wàññi ko waaw wàññi son bi rek te bu julli jotee nga dem julli ñëwaat noonu la la koy defee ci football bi yow mbokk bu baax nga doo seetaan football ah bu baax nga yow imam waaye nag télé bi quoi seetaanal match yi quoi seetaanal Barça seetaanal jox leen ma tur yi waaw lu ngeen di noppi waaw ngeen xam ko ba pare ngeen di noppi ñaata ci ñun fii ñooy toog di seetaan mars Barça ak Real léegi léegi boo waxoon fii ku indi ku indi fukki at fukki saxaaba ak benn nga indi seen tur nga tegale ko fukki saxaaba ak benn léegi nga am problème waaye boo nee fii ku indi onze onze Real wala onze Barça onze heures nga jël portable léegi portable bi dem parce que ñee lañ gën a xam ak saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi loolu nag ay fexe seytaan la seytaane mooy fexe yow jullit ginnaaw ba mu la ubbilee bunt yu bon yi ay xalaat la lay defee seytaane du ñëw rek ne la defal déedéet day ñëw indil la ay xalaat ci sa xel gis nga ba mu la baaree ci tudd yàlla fa inna zikrallahi azamu taaridu seytaan ndax tudd yàlla moom mooy ngànnaay li gën a rëy li dàq seytaane waaye seytaane fexe ba nga bàyyi léegi nag lan la lay songee mooy al waswas fal waswas min wasatish min wasawis wa hiya hadisul qudsi alladi yulqihi iblis fi bani adam seytaane ay waswas la def jàng leen si yàlla mu ne qul aawuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahi naas min charril waswaas gis nga ay jax-jaxal la lay def seytaane day ñëw ci yow ci sa nopp su ngeen demee ci youtube bi am nay vidéo yu ay mbokk jullit yu baax di defar dafa def ay montage am na ci benn bu tudd as seytaan wal hijab as seytaan wa salaa as seytaan wa zikr xoolal xale bu jigéen bu hijab ba rafet seytaan ñu ne ko mo yow démb lañ la jëndal jaaro yu rafet doo génne jaaro yi soo jilbaabee kan mooy gis jaaro yi rek mu daal di jël jaar kii bi kaala gi jaarale ko nii ci no ginnaaw noppi seytaane na ko mais seen bi nag écarté jilbaab bi ndànk léegi nopp yi génn na dënn bi génn mu ne ko mais démb yow vraiment yaa ngi défrisé sa bopp bi ba mu glissé kawar gaa ngi leer rafet doo ko xaw a génne tuuti mu daal di aj kaala bi tuuti ci digg bopp bi lan moo fi desati xam nga su ko waxoon dindil jilbaab bi lu muy wax ba bañ seytaan du la wax bàyyi julli déedéet mu ngi mel ne fajar nga tëdd fajar nga dégg ñu ne asalaatu xayru min an naam nga bëgg seytaan ne la waaw xaaral tuuti xaaral tuuti des na des na ñii mooy et demi dañuy julli te 6 heures pile moo jo xaaral xaaral nga xaw a sàng tuuti quoi mu ne la waaw yow sax yow yow yow looy kër këri nii xanaa gisoo jàkka ji ñetti nit ñoo fay nekk yow tëdd noonu rek ba ci kanam yow da nga dof trop nga sàngu gis nga boo sàngoo xam nga ne iblis kañ la lay yee bu déggee ñu ne asalaamualeykum wa rahmatullah as rek mu ne la sawaay daay julli nañ ba pare de ndeysaan wala loolu raw na la te ñu bëri fi noonu la leen iblis di jàppe ci ataaye yeeg xaaral tuuti xaaral ba nga naan an jooda xanjara ko ndogata sa tayi ɓe njuuli ma juul funnangen nge gasani gis nga fe la lay wax penku baa ngi nii jeexul lan la ñoom buñ jullee dañuy dañuy yóbbaale jàkka bi après nga dem nga julli xoolal lim la xañ mooy salaatul jamaa xool lim la xañ yonent bi nee na ku julli fajar ci jàkk ah ku julli fajar ci jàkk lan la la yonent bi garanti mooy am nga kóolute am nga sécurité ci kanamu yàlla loolu la la xañ gis nga de mais bi nga yeewoo léegi nag yeewu nga sa tër mu ne la jullil garaawul taala allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha seytaane ba neer ngay julli inna salata kanat ala almuminina kitaban mawqut lañ waxoon de yow ba neer ngay julli nii gis nga li gën a garaaw nag mooy nga bàyyi ba jant bi di fenk ci ñaari béjjënu seytaane nga ñëw di julli kon ñaara ngi noonu da ngeen ko jàpp bi ci njëkk mooy yéen laay waxal de suñ xamul ñaari nañu arrêté conférence bi bi ci njëkk lan la woon nañu arrêté imam nañu arrêté bi ci njëkk lan la woon ah ñaareel bi a zikr da ngeen defan dama fi nekk di wax yu ngeen du ngeen toog fi diretaan damay wax dama koy wax pour ngeen jàpp ko pour ñu mën a mucc da ngeen koy jàpp ñaara ngi noonu taxyiru xalqillah beneen bi mooy azik ñetteel mooy idlaalul ulama waaw waaw seytaane day ñëw ci borom xam-xam yi xoolal tey wala Sénégal borom xam-xam bu seytaane ñëw ne ko yow xam nga ne yow da nga am alal bu bëri te yow da nga am xam-xam te jigéen ñi dañ laa bëgg bul yem ci ñeenti jabar de utal fukki jabar borom xam-xam bi am fukki jabar kooku seytaane daaneel na ko wala daaneel ko. waxuma ki am juróom de idlaalu seytaan borom xam-xam bi ñëw di daganal bidaa borom xam-xam bi ñëw di daganal shirk xoole kooku ñaata la réeral iza zalla al aalimu zalla al awalim su borom xam-xam daanoo day daaneel monde ndeysaan kala borom xam-xam bi daganal gàmmu borom xam-xam bi daganaloon gàmmu tey ñaati nit ñoo ko topp ci loolu ah ñaata borom xam-xam bi daganal takk jabar yu bari xoolal ñi ko topp ci ñooñu tey borom xam-xam bi daganal garaawul heure bu la neexee mën ngaa julli bu la neexee sax nga xëy na xëy di liggéey ba ngoon nga dajale waxtu yi fay borom xam-xam bi daganal loolu mooy jàng ngeen histoire réeral borom xam-xam wa haza min azami ma yaxrisu alayhi seytaan borom xam-xam ñaari nit bu ñu toogee nii ki seytaane gën a bëgg réeral mooy borom xam-xam bi lan moo tax parce que borom xam-xam bi nit ñaa ngi lay xool nit ñi dañ laa def royukaay nit ñi dañ laa bëgg nit ñi loo def ñu def ko su la seytaane daanelee nag iblis bërëng la luy xew jàngeen aaya bi watlu alayhim naba allazi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fatbaahu shaytan ndeysaan fa kaana min alxaawin mooy bal am bun baawra kon ñetteelu bunt mooy seytaane day réeral ay borom xam-xam pour nit ñi topp ci wala Sénégal ñi ñu fi woo ay sëriñ ñi ñu fi woote ay sëriñ ñan ngeen ci gis ñuy woote ci alquran ak sunna ak tarbiya ñan ngeen ci gis sëriñ bu am orchestre sëriñ boo xam da ngay bàyyi ji taalibe yi ñi ngi xeesal ñi ngi meesu waaw mu son naa wax benn waaye ma ne ko waa yéen seen daayira bi jigéen ñi dañuy xeesal di ñu ne waaw sëriñ bi nee na jigéen lu ko rafetloo rek baax na su rafetee rek baax na na rafet su rafetee rek yàlla kontaan na ci loolu loolu ban hadis la kon nañu bàyyi xel yooyu seytaane day daaneel borom xam-xam da ngeen di yaakaar ne borom xam-xam yi seytaane mënul leen dara Adama ak borom xam-xam yi ku rawoon ah Adama moo leen raw Adama nabi mu ngoog ñeenteel nazagu seytaan qaala taala wa imma yanzagannaka min alseytaani nazgun fastaiz billah innahu huwa samiun alim mbokk yi seytaane bokk na ci li muy réeral nit ñi mooy ay kàddoom yu muy dugal ci sa ci yow jël yu bon di la ko taaralal sunu borom ne soo bëggee mucc ci loolu su la seytaane dikkalate na nga muslu yàlla ci seytaan mooy was-was yooyu mu lay def di la jax-jaxal ba nga dugg ci loo xam ne war ngaa dugg te seytaane dafa yor ay yoon yoo xam daf koy exploité mooy du gaaw rek ñëw ne la nangam dafay xool fi nga faible fi nga am faiblesse ndeysaan benn xale bu jigéen ñëwoon na di ma wax sama papa def ma sonal ma ne ko lu ko waral mu ne parce que sama yaay moo koy xiirtal sama kaw su ma waree muuru su may jàngi su may su may ma ne ko mais yow doo toog nga wax ak paa bi affaire bi leer mu ne ma non non dési décision yi maire bi minuit la koy jël da nga wax bi mu ne décision yi maire bi di def ba paa bi di ko accepté maire bi minuit la koy def loolu ko am xel xam na lu xew iblis noonu lay def iblis dalay xool ba mu xam ne am nga foo am faiblesse fi dëgëru fi mu jaar foofu moo tax sa bunt yëpp nga ko war a tëj ba pare kàddu yàlla bu mu la sori saa yu la iblis xalaat loolu bon rek waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqatul ci yàlla tabaraka wa taala loolu moo la mun a aar boobu mooy ñeenteel bi damay gaawantu ndax temps bi juróomeel mooy taifu shaytaan qala taala inna alladina ittaqaw ida massahum taifan ida massahum taifun min alshaytan tadakkaru fa ida hum mubsirun seytaane day wër ci ñun day wër ci sunu kër yi day dugg fu nekk da ngeen def ne seytaane dafa toog fële day ñëw seytaane bu xëyee day woo mbokkam yi doomam yi ñëpp ñëw mu ne leen kan ci yéen tey moo def dara kii ne daaneel naa avion mu ne ko yow la yow alku nga dara nga deful lu baax xanaa xamoo ñooñu nga rey ñëpp àjjana lañ jëm dañuy shahid kii mu ne këpp naa bato mu ne ko defoo dara kenn ñëw ne ko dama fekk ñaar ñu doon ànd ma teqale leen mu ne ko allah jege si daal di koy kaala ne ko yow yaa liggéey ñi ci des defuñ dara gis nga seytaan musul toog bés bu nekk day wër suñu borom moo nu ko nettali taif day wër taafa yatuufu baynana day dugg ci ñun dugg suñu kër yi jaar ci joom yi jaar ci soxna yi jaar ci yow xoolal tey ñun ñëpp ni ñu feebalee ci seytaane ni seytaane rësalee dëkk bi ah xool leen li mbokk yi xool leen dëkk bi nu mu mel saa yoo génne ci ay bàkkaar ngay nekk ba ba ngay yib yi ay bàkkaar ngay dajeel ay bàkkaar ngay gis nit ñaa ngi def bàkkaar ñun ñëpp nangu nañ sax léegi bàkkaar yi garaawul kenn du ci wax dara ndax lan ndax seytaane moo ko rafetal ci ñun si jigéen bu sollu gàtt wala ay weenam génn wala ay pan loolu sax garaaw da ngay gis imaam sax mën na sëlmal gis benn jigéen bu ñëw taxaw ci kanam ah imaam dama mu ne ah na nga def ku nekk ci ñun. oustaz man ne dama am benn laaj da leen li dënd bi nga naan ko laaj bi mooy lan laaj bi mooy lan gis nga seytaan nu mu lay def au lieu nga ne aus billahi min sharajim dama nga solu ji ba pare nga doog a ñëw. déedéet mais parce que seytaan moo lay moo lay foyee seytaan moo ñuy foyee mbokk jullit yi yooyu ay yoon ñu ngi ci 24 décembre ak 31 xoolal fexe seytaan ni mu fexee ba 95 pour cent musulmans ñuy feetu 31 décembre instant yi ñëpp jël feet lan la ñuy feetu yàlla am na doom loo xam ne jinne yi sax dañ ko weddi asamaan weddi ko montagne yi weddi ko suuf si weddi ko jinne yi nee nañ wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan la loolu weddiwuñ ko yàlla mu ne yakaadu samawatu yatafattarna asamaan mu ngi xotteeku wa tanshaqul ard suuf di xar wa taxirrul jibaal limaza an daaw lirrahmani walada wa ma yanbagi lirrahmani an yattaxis walada in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda waaw asamaan weddi suuf weddi montagne weddi jinne yi weddi ñun nan la ñu def dañoo peinture tali yi ak garab yi takk ay lampe verte jaune rouge bleu blanc rouge def ay di taal ay pétard est-ce que kenn ci ñun fii rek jël nga sa doom conscientiser ko ba warul taal pétard kenn ci ñun fii amaana ci ñun fii sax am na ñoo xam ne seen doom ñooy taal pétard yi parce que waxook sa doom waxook sa waa kër xamaloo ko feet bi du suñu feet xamaloo ko ne ibnu taymiya bu ngeen dee jàngee iqtida siratal mustaqim téere boobu da ngay gis mu ne sondeel sax amoo droit jaay ko gaa yi ci seen feet bi waxuma laak nag nga ne non enen en en yahaani baal kono en yahay marché so den gertogal waray mbaɗen feet nder galle walla ñun duñu baali waaye dinañ feetu ci biir kër gi ban feet la ku moom feet bi feetu kan la feetu jullit voilà kon yooyu ay bunt la yoo xam ne nañu bàyyi xel ne jullit 24 ak 31 jullit moomu ko jullit bi dafa war a am pas-pas bu dëgër su ko seytaane xëccee mu lànk mën nañoo mucc seytaane li muy garaaw garaaw mën nañ cee mucc képp ku làqatu ci ginnaaw yàlla mucc ci seytaane kon lan la ñuy xaar ñaata lañ limagum ci ay yoonu seytaane kan moom may fàttali yi ma lim benn nit saadisan istifzaazu seytaan sunu borom nee na wastafziz man istataata minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi xaylik wa rijlik wa sharikum fi l amwali wal awlaad waidhum wa ma yaidum sheytan illa gurura allahu akbar xool seytaane maye seytaane léegi day maye mooy alal ju bon ji ngeen di gis wala carte léegi ñaata façon carte mu am Sénégal ba ci marché yi sax léegi carte la dégg naa démb gis naa ci Facebook benn sénégalais bu gagné Espagne ñaata million euro 400 000 euros kon gis ngeen ko ba pare gars yi naan macha allah kii di affaire am baax na. wala carte fi mu nekk nii bu ñëwoon nga gis sëriñ yëpp ñëw di ko ziyaare sëriñ yëpp bëgg mu nekk seen taalibe au lieu ñu ne ko da ngaa oto fa araam man aqala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata arbaina yawman kullu malin nabata ala haramin fannaaru awla bi yonent bi alayhi salatu wasalaam bi muy rañaan di dem laylatul isra wal mi'raj gis na ay nit yoo xam ne seen biir yaa ngi roy ba toll ni néeg kullama araadu an yaqumu saqatu wa qultu ya jibril man haula qala haula allazina yakuluna riba min ummatik lekk lu araam ku lekk lu araam boo ñaanee yàlla yàlla du la may jàngeen hadis bi yonent bi gis na waajoo xam ne mu ngi tàllal loxo yi di ñaan ba poqotaan yi feeñ Moussa mu ne yàlla doon nangul kii mu ne fa anna yustajaabu lahu mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa huziya bil haram fa anna yustajaabu lahu mais xoolal alal jooju tey iblis daf koy maye iblis yemul ci maye alal ju araam rek nit ñi di ko jël waaye ay doom yu xaraam sax iblis daf koy mare ay doom yu araam wala ñaata sénégalais ñoo am doom yu xaraam te iblis moo leen ko may alal ju araam doom yu araam ah soo ko doon lim yu araam yu iblis di maye kenn xamul nu mu toll te xoolal ñooñu ñëpp ci ay pexe rek xoolal waajooju ju gañe euro yooyu mu gañe xoolal fi ko iblis jaar sàccul fenul am na alal waaye ndax dagan na léegi nag fan la ko iblis di wax danaan ko xoolal da ngay bàyyi ba weeru koor gi ñëw nga dem umra garaawul nga tuub boo demee nga jënd benn kaamil dox dugal Medina nga jënd benn kaamil dugal Makka nga ñëw boo ñëwee fii nga organiser iftar macha allah yàlla dalay baal ndeysaan ñu fàtte hadis bi inna allaha tayyibun la yaqbal illa tayyib ya ayuha rasul kulu min at-tayyibat wa amalu salihan te yàlla li mu wax rusul yi loolu la wax ya ayuha alladina amanu kulu min at-tayyibat yaa li mu wax yonent yi loolu la ñu wax nañu lekk lu dagan lu teey te dagan alalu carte iblis daf koy maye te nit ñi xamuñu ci yoonu iblis la bokk doom yoo xamante ne doomu yoon ci yooyu la bokk mbokk jullit yi nañ leen bàyyi xel suñu bopp nañ leen góorgóorlu suñu diine nañ leen xam yoon yi ñu iblis ubbil juróom-ñaareel taswilu shayatin wa imlaihi قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم day gis yenn mbokk di góorgóorlu di góorgóorlu nekk ci diine nekk ci alquran ak sunna nekk bis bu nekk mu ngi ci première sàppe nga jékki-jékki rek gis ko sa waay mu kiris karas fa la tubéy ji waaw sa waay gars yi fasaale leen ma de maa ngi ci de maa ngi ci biir quoi gars yi jaajëf waay léegi kay nekkatoo fi boo fi nekkee génn nga fekk seytaan moo la koy def mooy ñëw ci yow ne la yow dof nga rek yow ñii ñii ngay toog toogal fii rek adduna bi daf lay raw yooyu ñu lay wax ay seer nga boo yow blende nga yow naakal nga walla mënoo xaar tuuti 18 ans nga am ah paa yi nga gis si jàkk yëpp ñoom ñëpp ay 30 ans la ñu am et puis sa xoolal gars yi ñu ci ëpp dañoo tuub ah ñu ci ëpp dañoo tuub yooyu la Iblis da wax rek nga génn dem fekki mbooloom ndeysaan fekk yaa ngi doon góorgóorlu ñëpp xamoon nañ la ci diine ñaata mbokk ngeen xamoon fii ci diine tey ñaata xale yu jigéen ñaata xale yu góor ndeysaan mu ne sunu benn pap comme daa demoon màkk ndeysaan mu gis ñëpp di xab moom tamit mu ñëw mu xab paay mu nekk eh jooni koy diine sukaa bee ngonda bàyyi na ko léegi ci diina xale yi la nekk bu ñëw mu ne oustaz yéen seen diina bi diina xale la ma ne ko ah waaw diina xale yi la kay xale boobu tudd Muhammad moo ko indi woon sallallahu alayhi wa sallam te xale boobu xanaa moom moom mag ñëpp nag léegi wala yonent bi alayhi salaam bi ko yàlla di yónni xale la sahaaba yëpp ñu ñëw yonent bee leen mag bi ko yàlla di yónni 40 ans la am yàlla mës na yónni yonent bu nekk paa yaxyaa bi ko yàlla di yónni bi ko yàlla di wax yaa yaxyaa xusul kitaaba bi quwa xale yi dañoo ñëw ne ko yaxyaa kaa ñu di faw yi mu ne leen maa lillahi bi xuliqtu yàlla binduma pour faw jàngeen ibrahim samina fatan baat boobu la yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim kon ñëpp ay xale lañ woon jeune kon jeunes yi ñoom ñooy samp diine yéen jeunes yi yéen a war a samp diine ji gis ngeen diine islam bii du samp lu dul ndaw yi ñooy mel ne saxaaba yi meloon samp ko dëkk bi bëri nay problème jafe-jafe yi bëri na ci jullit yi waaye bu ñu wakkirloo ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin mbokk yi yooni iblis yi muy jaar di réeral doomu aadama yi yoon yu bari la waaye war nañ cee takk yenn nit yi ba ñu xam ko saamin an najwa min ashaytan mooy dee dee dugg sa biir rek gis ngeen iblis bi muy nax bi muy nax aadama ak awa dafa ñëw fekk leen seen biir néeg fa ñu nekk ci aljanna fa leen yàlla denc la leen iblis fekk ne leen xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gii ñu ne ko déedéet mu ne yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel yéen a doon seetaan film immortel am na fi ñu doon seetaan film immortel ah ah immortel xoolal yooyu rek xool tubaab bi ni ñuy naxe julli ngay seetaan immortel muy jël ay doole quoi nga naan së dafay yokk pii sam-sam kii du dee wala yàlla binde ku dul dee kullu man alayha kullu nafsin yow nga toog di seetaan loo xam ne xam nga ne du dëgg ngay ngay yàq waxtu te xam nga ne dañ laa tere waxtu nga yàq waxtu yàlla dafa giñ ci waxtu wi giñ na ci guddi giñ ci bëccëg giñ ci tàkkusaan giñ ci jamono lépp la yàlla giñ yow nga toog di ko fowee iblis loolu la ko loolu la wax aadama ba pare yemu ci de dafa giñ wa qaasama lahuma wa qaala innani min annasihin su ngeen gisee ma leen di wax lii dama leen di laaya biir xoola iblis waat aadama ak awa ñoom yaakaaruñu woon ci kaw suuf nit dina waat ci yàlla di fen yaakaaruñu ko woon ndeke waa ji day fen ndeke moo tax yenn saay benn waay ñëw même ci sa xarit yi nan la gis nga booy man xoolal sa gaañ kës la soo gisee ma lay wax lii xoolal dama bëgg nga comprendre dama bëgg fekk yu daf laa bëgg a sànq kese yooyu nañ ko xam yàlla moo ñu ko wax ci yoonu seytaane yi la bokk yenn saa yi benn waay dina ñëw ci yow di wax ak yow fekk seytaane moo ko pikiir moo ko yónni ci yow ne ko demal minen fof min jehi min donki ya maa taw ana maa waawan ma huunde ñun ñëpp dem nañ mënuñu yow demal amaana yow soo demee di nga ko mënal dara ñaata ci ñun mbokk yi kon foog ñu bàyyi xel yoon yooyu yëpp ñu ut ay pexe yuñ ko tëjee te mooy wàkkirlu ci sunu boroom jalla jalaaluhu subhanahu wa taala boobu moo doon juróom ñetteel damay tënk di indi yoon yi rek beneen bi mooy wax yu seytaan li awliyaayi min al ins seytaane day wax yu ay xarit ay nitam mooy li ma doon wax sànq su wax yoo ay nitam nag nit ñooñu ñoom ñooy tasaaroo ci kaw suuf di tasaare ak mbon di tas mbon ku ñu gis bu fekkee dëgëroo ñu daan lay yóbbaale boobu mooy juróom ñeenteel fukkeel tanzilu sayatin alal kahana wal arrafin seytaane day dem ci buxaaba yi buxaaba yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wa annahu taala seytaane wax na ne wa annahu kaana rijalun min al insi yauzuuna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa kon seytaane ndeke dafa am ay nit yoo xam ne daf leen di dee ñoo ñooy bu xaaba yeeg seytaane ndeke ñooñu ku dem ci ñoom rek seytaane am na ci yow wàll seytaane am na ci yow pexe kon mbokk yi su ma tënkee kàddu yi yaakaar naa am nañu ñaata bunt yu seytaane di jaar ci ay nit am nañ ñaata am nañ fukk fukk yooyu war naa doy ñu jàpp ko réviser ko ba déwén incha allah buñ fi yàlla fekkee bàyyiwaat ñu fi ñu dajawaat fi ñu daal di eggali yeneen bunt yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.